mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen àndax ñun si rajo Rewmi FM tey nag mbégte lañu am di ci dalal tey ci plateau émission gox bi Abdoul Aziz Paye nekk bokk moomeel bu Gueule Tapée Fass Colobane euh, moom la ñuy daal di waxtaanal ci li nga xam ne moom moo jëm ci émission gox bi monsieur le maire. ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ñu ngi ñu nangulee invitation bi. maa leen di sant di leen gërëm ñu may ma rek ci njëlbeenu waxtaan bi euh, ma souhaité euh, kooru jàmm ak salaam. Mhm. Euh, partie de la communauté musulmane bi commencé tey seen woor. Mhm. di ñaanal aussi suñu mbokk jàngu bi. Mhm. ñi nga xamante ni ñoom depuis foofu ba léegi ñu ngi ci koor gi di ñaanal ñu woor rek jàmm ak salaam. ci kattan suñu borom bi di leen sant aussi leen gërëm ci occasion bi ngeen ma may. Mhm. mu mën a taxaw toog waxtaan ak seen ay auditeurs. am na solo kooru jàmm di ko ñaanal ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo de askanu Sénégal waaye laata loolu monsieur le maire dañ koy daal di dooree waxtaan bi ci li nga xam ni moom moo jëm ci feetum indépendance 62 ans ba tey sunu moom sunu réew di feete waa di euh, feete li nga xam ne nag moom moo jëm ci àpp boobu euh, lan nga ci mën a sànni tey kàddu mi nga xam ne ni ki ëllëg lañ ko war a amal mais laata loolu discours Euh, bi nga xam ni njiitu réew mi war na ko jagleel ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ni ki tey ban attente nga am ci discours bi ni mel. Euh, d'abord di souhaiter sénégalais yi ak sénégalaises yi bon bonne fête suba jàmm ak salaam. Mhm. Euh, di xaar rek. ci njiitu réew mi mbégte gi xale yi lion yi def ci ñun ba dem indi ñu coupe d'Afrique. discours bi ñu tënk ko si ya nga xamante ne day nekk un discours programme ba nga xamante ne au bout de deux ans dinañ am ay objectifs clairement définis nga xamante ne dañ koy atteindre su le plan de l'emploi sur le plan de l'économie ak yooyu yëpp mais que ñu bañ a nekk léegi rek ay discours fleuve ya nga xamante ne ay projection rek la ñuy def te effectivement pour ñu gis si réalisation day am problème. parce que mbégte gii ñu xale yi indil. dem jëlal ñu coupe d'Afrique bi indil ñu ko par exemple dem qualifier coupe du monde tey jii mbégte la bu taxaw bu fi nekk mhm. mais dañu bugg ko discours suba bi mu sukkandiku ci ay tey waa tey si ngoon plutôt mu sukkandiku ci ay objectifs yu leer et clairement définis ñu xam ne balaa le 31 décembre 2021 dañu ne cinq mille emplois dañu koy créer ñu créer condition wu cinq 500000 emplois yi mu leer ñu xam ne effectivement créer nañu 500000 emplois mhm. ñu ne dañuy def dañuy 2023 dañuy atteindre autosuffisance alimentaire ak autosuffisance alimentaire ci wàllu ceeb bi ñu fexe ba ne la joxe date bu précise buñ ci eggee dinañu terminer loolu Sénégal kenn dootu fi jéggaane di jënd ceeb ci àll ci mbedd mi di ñëw di ko fi indi mhm. cest dire tey jii man yooyu lay xaar ci discours président la République après 62 ans d' indépendance. ba tey ñun suñu réew moom moom boppam loolu nga jàpp. moom boppam xam nga àdduna dox na. bépp fànn koom koom xëy. li nga xam ne moom moo jëm te dañ naan li ñuy lépp dafa bari lool. waaw xam nga moom sa bopp moom buñ ko seetee si ñun rek dañuy xam. xam nga ku mënulal sa bopp doo moom sa bopp foog nga mënal sa bopp pour moom sa bopp mën nañ la wax nag ne yaa moom sa bopp mais est-ce que waxin boobu ñu lay wax yaa moom sa bopp tax na nga moom sa bopp man dama jàpp ne ñun moomaguñu suñu bopp. parce que il faut ñu desserrer anneaux yi jël suñu ay responsabilités jël ñu en charge actuellement pour pouvoir avancer. tey jii lii xaw Ukraine ak kii ak ak Russie rek mu ngi commencer ñi di am ay répercussions parce que nit ñaa ngi wax naan gaz bi am na risque de pénurie de gaz am na risque de pénurie d'essence donc yooyu yëpp aussi dañ koy sóor mais bi tey jii les gens commencent à avoir peur avec le euh, avec ça. donc il faut que ñu xam ne moomaguñ suñu bopp mais pour ñu moom suñu bopp il faut ñu suñu bopp il faut ñu gëm suñu bopp il faut ñu xam ne yàlla may nañu xam bi may nañu yitte yi may nañu lu ñu mën a defaree suñu réew mais ñu defar ko ci ngor ci fulla ci fayda ak ci dëgg loolu rek moo ñu mag yaakaar nga ni loolu moo mën a nekk solution bi ngir ñu mën a passer étape yu bari yi ñu nekk waaw étape yu bari pour ñu bàyyi ko moom génn ci foog ñu dox ci dëgg ak fulla ak fayda li mën a nekk ñu toog wax réew mi ni lii moo mën a nekk jublu ci parce que nag réew mi du ay dofa fi nekk boo toogeek nit ñi wax leen ne lii moo mën a ne lii moo fi mën a am boo leen ko waxee dinañ ko nangu te dinañ la ci jàppale nga def ko bu ñu ko defee noonu kon léegi léegi rëpp sotti mais dañu ku mën nday am nday ku ma amul nday bi la ñu war a jël teg ko fële da nga yaakaar ni dafee bari moo fi bari parce que kii laa faral kii laa àndal kii moo ma jàppale kii moo ma defal lii boo ko defee rek li ñu lay dénk dafa mel ni matagoo li ñu dénk damay jël sama exemple tey jii rek man su fekkee ne dama ñëw ne damay bugg defar sama gox ne non ku ma woteelul ci biir gox boobu duma jël en mais dafa xam man comprendre gu ma mission bi parce que bu dootul pour ñi ma àndaloon rek pour ñi ma àndaloon la ak ñi ma àndalul woon ñun ñëpp ñu bokk ndey bàyyi àndandoo dem liggéey pour njëriñu gox bi parce que ñi ciy jëriñoo mooy suñu ay jarbaat suñu ay doom suñu ay sët donc il faut aussi si état bi au niveau de de de, ñu comprendre phénomène yi noonu bàyyi loolu boole ñëpp bu ñu weesoo élection ñu xam ne weesu nañu élection ñu taxaw xam ne réew mi rek moo fi nekk amul ku xonq amul ku ñuul amul ku verte amul ku jaune. ñu ngi jublu jublu ci weeru koor gi daanaka tey la ñenn ñi am ñaari fan tey ñu ñu bari am nañ benn fan mais ñu ngi gis ni li nga xam ne moom moo jëm ci diwlin bi ñu ngi ne njëg bi sax yokk na donc tey nan la ko na nga jàpp ni tey ménage yi naka lañ dina dundee kon weeru koor dafa mel ni njëg yi dafa nar euh, gën a yokk waaw xam nga nag loolu responsabilité état la. parce que nag bu ñu jëmee ci lu dem noonu bien que dañu libéraliser commerce bi mais am na ay produit de première nécessité ya nga xamante ne prix yi dañ ko war a et contrôler parce que panier de la ménagère moom du xaar parce que nit ñi seen panier boobu élastigul parce que su fekkoon ne bu ñu yokkee diwlin bi dañuy yokk salaire yi en même temps fekkee bu ñu yokkee ceeb bi dañuy yokk salaire yi bu fekkee dañuy yokk soble bi dañuy yokk salaire yi boobu du am problème mais salaire yi mënuñu continuer nekk fi ñu nekk ñu bàyyi cette liberté de commerce la ak commerçant yi ñuy yokk à tout bout de champ loolu dafa normal lu ci réew mu régalien réew ñuy situer responsabilité responsabilité yi et responsabilité le premier responsable c'est l'État du Sénégal okay. il faut qu'ils prennent la responsabilité mhm. mënuñu dugg ci koor ni ñu war a jàmm yàlla war a woor war a dog njaboot yi seen loxo jotu seen ginnaaw. Mhm. ñu yokk produit de première nécessité te état bi du agir. beneen ponk boo xam ne jukki na ko démb moo ngi ne li nga xam ne moom moo jëm ci nguur gi sax dafa am faiblesse ngir aveu d'échec la ni mu ko waxee ci li nga xam ne moom moo jëm ci location bi. xam nga jëlul na fi ay dogal pour wàññi mais gis na ni état amul doole bi mën a wax ñi nga xam ne ñoom ñoo di bailleurs yi ngir ñu wàññi nee na sax li ni mel moom aveu d'échec la ci moom naka nga jàngatee kàddu yooyu. waaw xam nga parce que duñu xam nga yaa di am na ay mesures yoo kenn du ko jël noonu. doo jóg rek jékki-jékki ne damay wàññi loyer bi li mooy barème bi fu la ñuy yem. alors que yow balaa kër gee am dafa am fu muy jaar ba kër taxaw di nga jënd ciment di nga jënd fer di nga jënd ndox ainsi et cetera et cetera di nga jënd terrain di nga fay ay droits d'enregistrement donc est-ce que mesure préalable yi ñu waroon jël yëpp. pour harmoniser loolu atténuer coût de construction bi d' abord parce que coût de construction bi la ñu war a d' abord contenir boo ko continuer rek après li ci des mën nga jël ay décision ne non loyer bi mënul dépasser fii. Mhm. mais bu fekkee li nga waroon def si benn pàcc bi defoo ko. Mhm. mooy phénomène yooyu yëpp xooloo ko ba pare ñëw. ba finalité bi nga ne nii alors que le taux d'intérêt mu lebee moom pour fay këram xamuloo ñaata la donc yaa ngi indi ay conséquences ya nga xam ne mën na am ay conséquences néfastes. Mhm. biir économie bi. man mais bu nguur demee ba naan aveu d'échec la c'est gravissime loolu laa la bëgg a wax cest à dama ne la loolu dafa jéggi dayoo parce que am réew mën ñu dénk ngay dem ba si toog ba si moment boobu nga naan ay aveu d'échec la parce que ça ko avec sérieux sérieux c'est-à-dire pratique politique la ñu war a jël ko teg ko fële di def les choses avec sérénité parce que une telle décision on la prend pas à la effectivement am na nu ñu ko doon jëlee mais euh, bailleurs yi dinañ ko respecter locataires yi respecté ko il y aucun problème mais malheureusement c'est-à-dire que c'est une mauvaise c'est une très mauvaise mesure qui a été prise et qui a eu ces conséquences là donc parce que dans la précipitation on l'a fait pour plaire faire plaire aux populations pour am ay électorat mais c'est toujours la conséquence nañu bàyyi di jël ay mesures pour des élections te di jël ay mesures ya nga xamante ne ay mesures la pour le peuple sénégalais pour ñëpp mën si mbir mi. da nga jàpp ni mécanisme yi des na ngir ñu mën a joyanti mbir mi ba. lu bëree bëri bëri bëri aujourd'hui da ngay jënd tu payes la taxe sur la consommation à 18 pour cent boo jëndee fer tu payes la taxe sur la consommation à 18 pour cent boo demee les banques tu payes euh, avec un taux d'intérêt de 14 pour cent 13 pour cent quelqu'un qui na xamante ne moom économie am yoru ko si boppam la monnaie la maîtrise de sa monnaie yoru ko parce que la monnaie on est dans le cadre de l'UEMOA c'est-à-dire que la politique de crédit aujourd'hui bu banque yi di mën a fii sax maîtriser wuñu ko donc à partir de ce moment yow da ngay am problème pour jouer sur le taux d'intérêt alors bu fekkee ni taux d'intérêt bi dafa baax donc c'est-à-dire que nit ñi mën nañu dem tey leb boo lebee 100 francs actuellement tu peux payer 114 francs alors que mënoon nañu def ne boo lebee 100 francs tu payes 102 francs à partir de kooku intérêt bi muy fay bëreetul kooku bu lebee xaalis boobu pour dem tabax kër mais kër gi construction bi mënatu nekk cent quatorze francs cent deux lay doon <laughs> donc finalité bi buy loué bu doon loué cent cinquante mënatul loué cent cinquante mille cent vingt cinq mille lay loué bien sûr donc conséquence ensuite l'autre aspect c'est quoi parce que je ne peux si dëkk bi ñu am la SNHLM am la SICAP mu nekk di des sociétés nationales la SNHLM aujourd'hui Senghor a, a permis à Senghor de loger plus de dix mille à quinze <coughs> la SICAP a permis à Senghor mille à quinze mille c'est-à-dire que li Senghor logé noonu si ay nit su ko Abdou Diouf defoon Abdoulaye Wade ñëw def ko Macky Sall def ko non kenn dootu fi loué kër à plus de quatre-vingt-dix mille francs. moom nee na nag logements sociaux yi nga xam ni dëgmal na ko mën na nekk solution. mais lu tax ñu koy jox ay promoteurs privés alors que on a des sociétés originellement pour ça SICAP loolu mooy promotion société à habitation à loyer moderne. pour <laughs> les les populations la SICAP c'était ça sont nañu dellu seen seen nu mu tudd seen seen seen seen euh, li taxoon ñu ñu ñu tabaxal SICAP. vocation bi vocation première bi nañ ci dellu SICAP na dellu ci vocation première am SNHLM dellu ci vocation première am suuf si ñuy jël di ko jox ay promoteurs privés. ñuy dem di tabax di jaay nit ñi non nañ ko jox SICAP ak SNHLM ñu tabax ko defar ko ni ñu daan lebalee nit ñi nit ñi di fay par fin du mois nit ñi di fay par fin du mois pour am kër. Ah. parce que SNHLM pour Sénégal yëpp la SICAP pour Sénégal yëpp la reymul Dakar rek. am na solo Abdoul Aziz Paye moom mooy sunu gan mooy maire bu Gueule Tapée Fass Colobane euh, monsieur le maire ñëpp ñu ngi ne yeewi askan wii ba ñu falee seen maire ñu si bari kenn xamu leen mais kon jot na kon monsieur le maire Abdoul Aziz Paye. Abdoul Aziz Paye moom mooy kan mooy bokk moomeel bi euh, jaar-jaaram lan la. Euh, man de benn doomu Sénégal laa rek bu nekk ci réew mi. fii ah, parce que ñu ne dañu ñu ci dañ ne dañoo yeewi askan bi dafa fal ay maire waaye. maire yi sax ñu dëkk si gox yi. xamuñu seen maire ndax loolu la. dégg naa daal le 23 ci guddi am na benn télévision daal bu bu bu ñu waxee sama tournée gagné naa. am journaliste bu naan xaw ma am ku fa nekkoon ne ko kooku c'est une force tranquille c'est quelqu'un toujours dans l'ombre mais c'est comme ça qu'il sort mbokk journaliste am la kooku mbokk journaliste am boobu xamoon na ma. Mhm. dama bëggul tambourinage. et de def di def politique politicienne man depuis plus de 1987 jusqu'à aujourd'hui je me bats pour les intérêts exclusifs du peuple sénégalais. j'ai été dans tous les combats depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui j'ai été dans tous les combats du peuple sénégalais alors donc. xanaa xanaa ab cell la woon de. non du cell. Euh, du Thiel mais dama bëggul euh, euh, li nit ñi gisee combat ak ni ma ko gisee bokkul damay am ay objectif damay travailler pour atteindre ko man loolu mooy suma objectif c'est-à-dire su ma nekk ci combat damay travailler pour atteindre l'objectif ce n'est pas faire du bruit ce n'est pas faire du boucan mais c'est pour travailler à atteindre des objectifs parce que on peut lutter n'importe de, de plusieurs manières mhm. la lutte peut être violente mais je préfère la lutte intelligente et efficace que la donc <laughs> ku si nekk rek ak sa approche d'étude donc voilà j'étais même euh, per, euh, secrétaire permanent à la coordination des élèves du Sénégal en donc j'étais pas quelqu'un de tranquille jaar jaar bi kon. waaw am na fi mi ngi fi. waaw mu ngi fi. ok faluñu ko xam ne xamuñu ko. xamuñu ko daal am na lu ma xam lu bëri. Mhm. liggéey ci lu bëri. depuis fonctionner lu bëri. liggéey nag si plusieurs projets. Mhm. réforme yu bëri yu am Sénégal fii ma participer si. mais toujours dans le cadre privé parce que ma ñëw ba léegi je suis dans le privé je travaille dans le privé. Mhm. donc si loolu laa nekk. donc xam un état aussi. travailler ci ay projet Ablaye Wade. travailler ci ay projet yu yoo xamante ne loolu Abdou Diouf su Abdou Diouf la woon donc ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et de savoir les mécanismes d'état c'est mhm. et de pouvoir travailler. am na solo léegi euh, ñu dem tey ñu fal leen. Euh, bañ lay installé sax yëkkati woon nga ci ay kàddu ne li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum agression ak désordre mhm. loolu bokk na ci sa yiite mhm. foo ca toll tey euh, waaw ñu ngi si teg ay jéego mais nag ñàkkul am nañ ci aussi ay tolof tolof jéego yi lan la ndax dañu commencé woon di dem ci yenn bërëb yi di dindit nit ñi fa nekkoon di leen wax ñu jóge fa parce que dañu jàpp ne occupation bi ñu occupé foofu normalul te foofu war na mën am njëriñ pour leneen pour commune bi donc di leen dindi leen fay jëlee mais yombul lu tax yombul d'abord mooy amul matériel ba nga xamante ne am na adé bu ma fekk foofu ci biir commune bi pour mën a def liggéey boobu damay obligé dem di louer ji matériel wala may àbb matériel pour mën a def liggéey boobu donc déjà loolu rek problème la donc mais ñu ngi jóg di saytu am na ay semence xanaa ñi fa nekkoon nekkul woon priorité si ñoom. waaw xëy na nag xam nga ku nekk rek euh, du wax du ma ŋàññi nit xëy na ku si nekk si ak vision man damay bi ma ñëwee dama njëkk li ma njëkk def mooy ma xool lan moo fi nekk comme outil comme matériel. parce que bënoo wax ne damay def lii ba pare dem ne population bi dinaa ko def dem nga gis ne yow li nga ko war a defee jumtukaay la war permettre nga defee ko amoo ko. Mhm. donc moo tax ma dem xool bi ma xoolee gis ne jumtukaay am fi may xool ak UCG di xool ak ville Dakar tey jii. ak le sous-préfet ak le gouverneur de Dakar naka la ñu ma mën a accompagner si matériel boobu pour ñu mën a continuer liggéey bi am na nag commencé nañ ko vers l' école Manguier mooy avenue Cheikh Anta Diop bi. maintenant on va attaquer bientôt vers la police du quatrième arrondissement. et ensuite attaquer aussi le boulevard de la Gueule Tapée. mais est-ce que yaa ngi diisoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bërëb boobu ndax ñëw rekk bëgg a yëkkati leen foofu itam est-ce que waxtaan dialogue dox na si diggante sa diggante ak ñoom. non wax wax nañu ko bu yàgg yónnee naa fa yónnee waat fa yónnee waat fa wax leen nañu jël seen ay matuwaay te jóge foofu te xam ne fii de nit ñi waruñu fi nekk. mais xam nga tamit dañu am sénégalais dañoo xaw dëgër bopp tant que gisuñu rek ngay agir dañ naan xëy na kii day wax rek. Mhm. damay ñëw minuit minuit laa fay dem une heure du matin fekk fa nit ñi parfois je dis fii du nekkukaay dem leen moo gën a wóor parce fii il ñu defar ko mën ko bàyyi nii boo waxee rek dañ naan na barka dem rek fu ma nekkoon. waaw mais ba ma fay jógee dama ne leen lii ak lii ak lii déjà rek bu ma ko gisee ci tali bi démb ci guddi bi ma fa awee maa nga fekkaat ci tali bi donc il faut que ma ñëw dindi ko <laughs> ñu doo a xam ne kii kon caaxaanul mais barka démb ñëw naa leen leen lii bëgguma ko fekk fii ci tali bi parce que fi muy tegu nii du yoon pour le moment jël leen ko ngeen déplacé ko seet fonk tal libéré tali bi pour nit ñi mais suba bu ma ñëwee bëgguma ko fekk mais xam naa bi may dem ñu ngi naan seen xeer ah bu demee dootu ñëwaat man démb bi ma ñëwaatee foofu laa ko fekk. kon li ngay def dafa am suivi. waaw dama ñëwaat dem fa laa ko fekk. mooy ne ko su ma xëyee euh, ah, talaata su su ñu jëlul ay pexe man mu jël samay pexe rek te du ma tooñ kenn noonu laa koy loolu laa koy jàppee ak ñoom waxtaan ak nit ñi parce que dama ne population yi sax ñoo ñu war a dimbali. Mm-hmm. man damay wax ne population yi ñoo war a nekk les agents les gardiens. de de l'environnement. est-ce que impliqué ngeen leen ci. non je l'ai j'ai fait un pour demander à toutes les populations de venir s'impliquer parce que affaire bi affaire u njaboot la ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo ko moom. ku si nekk lu si sa wàll fu ma dem defar ñu organiser ko euh, aménager ko def fa pavage ak yooyu na ma population bi dimbali ngir yàlla war a suuli xam ne moom moo ko moom mu toppatoo ko parce que ñoom sax seen bopp laa bëgg ñu defar ko cette implication participative de citoyens il faut que ñu am ko et man objectif boobu laa am parce que dama naan su ma ñëwee defar benn pavage fenn def fa ay garab def fa ay ban def fa jardin te impliqué wu ma si population bi du ñoom ñoo ko defar du ñoom ñoo si sonn su ma demee dañ koy yàq mais su fekkee ne ñoom ñoo ko defar képp ku ñëw di ko yàq nañ ne eh moytul parce que coono gi mu daj pour teg benn brique wala coono bi mu teg pour samp benn garab cest à boo gisee nga koy yàq dina ko dina jàmbarloo ak yow donc man c'est cette implication que je veux. Mm-hmm. cette pour ñu mën a sauvegarder les acquis. waaw désordre bi itam ku ko wax ci wax ci biir marché yi. parce que euh, Colobane sax ku ne kolobaan wax marché kolobaan bokk na marché yu gën a rëy ci ci diwaan ba xanaa euh, désordre bu ñuy wax itam foofu tamit xëy na war nga fa mën a indi ab jubbanti marché bi ak yeneen marché yi nga xam ne nekk nañ ci biir bërëbu Gueule Tapée Fass Colobane. waaw ñu ngi def suñu kent laay kàttan déjà parce que Colobane moom xam nga balaa ngaa defar bërëb nga dem xool lu nekk ci bërëb bi xam lu nekk ci bërëb bi lan la. li ñu njëkk def mooy bu ma ñëwee ak équipe bi ñu àndal ak xale ñu àndal dañ ne Colobane nañ dem xool lan moo fa nekk d'abord loolu moo fa nekk mooy xam ñaata natt ñaata cantine fa nekk man bi may egsi kenn mënu maa wax ne Colobane juróomi cantine fa nekk wala juróom benn wala juróom benn fukk. ah voilà xanaa ko doon joxe anam goo xam ne comprendre. waaw ah li yow yaay saytu li ma ñëwee li ma ñëwee. <laughs> Uh-huh. dama nekk mënu bi ma laajtee kenn mënu ma wax exactement ñaata cantine ñoo fa nekk ma ne ok jox nañ ma benn nombre mu ne baax na. ma jël sama équipe ma ne léegi commencé leen ngeen dem immatriculé ma identifié ma. mais bi ñu immatriculé identifié entre nombre bi ñu ma joxoon ak man nombre bi ma toll léegi y' a pratiquement de trois ah waay waaw. donc balaa ngaa defar béréb man noonu laa jàpp dangay dem nga xam existant bi xam ni fi nekk lan la xam réalité bi lan la boo xamee réalité ba pare nga woo acteurs yi ñu toog nga leen ah voilà maintenant fii dangeen ngeen fi am wàll ma am fi wàll keneen am fi wàll. Mhm. naka lañu koy defaree loo leen ci xalaat bu ñu waxee ma wax sama xalaat bu ñu waxee xalaat nag ba d'accord ci dara ba tënk ko ak population yi ñu tënk ko ci kayit exécuté ko parce que marché Colobane y a de désordre parce que déjà comité de gestion bi fa nekk ça fait presque trois ans comité de gestion bi seen mandat jeex na mais ñu ngi fa ba tey et je les appelle à la compréhension ñu nekk ci dëgg aussi ñu xam ne ci fan yu néew yi ñuy jëm dinaa woote. pour ñu def comité de gestion bu bees ñoom ñu tànn seen ay biir ñan ñoo leen war a jiite mais di leen xamal ne bu ba comité de gestion bii pas mairie bi da ci nekk ci biir parce que lu fa xew ci sama responsabilité la dinaa xam lu fa xew parce que bëggatuma kenn nekk foofu di ŋaañante wala ñuy yàq wala ñuy def te du amal njëriñ benn yoon population bi mhm. et les acteurs aussi qui sont à côté les populations parce que à Colobane y a un grand collectif des habitants de Colobane il nit ñi impliquer ci décision yi ñuy jël biir Colobane c'est important parce que tant que trouvé wuñu synergie bi boobu ak harmonie boobu entre acteur population et la mais et l'autorité day am ay problème et moi c'est cette dynamique unitaire que je veux créer au sein de la commune de Gueule Tapée dañuy sax am na ñenn ñuy wax sax naan marché euh, Colobane li muy génne ci xaalis recette ressource foofu mën na doxal mairie bi bu baax li nga dëgg li ngay dëggal lam waaw xam nga nag man bi may ñëw moo fa maa ngi fa fekk lu mat lu toll si juróom-ñeenti millions ci benn weer la fa bi génne. juróom-ñeenti million la la tolloo. man ba mu fa defee weer génne naa fa ñaar téeméeri million mais vingt millions. atteindre gu ma objectif capacité contributive bi parce que sa liggéey la laaj mën na génne lu lu lu pas lu yor commune bi yëpp mais mën na génne lu nga xamante ne dina jël en charge quatre-vingt pour cent des besoins la commune comme les autres marchés aussi parce que le marché de Gueule Tapée le marché de fas bu ñu ko defaraatee ñoŋal ko mais mën nañu génne mën nañu permettre commune bi budget commune bi mën nañu ma permettre rapidement dans trois ans mu egg à trois milliards ou quatre milliards. kon euh, modernisation bi ñu war a def ci marché bi ça s'impose. ça s'impose si laa nekk si laa nekk parce que si projection yi laa nekk projection yi il ñu toog ak promoteurs yi parce que am na ay contrats yu ñu fa signé yu fa nekk mais damay toog ak promoteur bu nekk di waxtaan ak moom parce que mënatuma accepter wala may concevoir ak ñi ma àndal. marché yi nekk fii te amatul njeexital pour population yi amatul njeexital pour commune bi di jël si benn marché chaque jour 4000 francs par cantine mais looloo jeex alors que des personnes physiques ñoo di fa tappewu au bout d'un mois 20 millions 30 millions ah, mais alors ak lu ko la mairie am mënu fa am 20 millions 30 millions mais est-ce que ñu wax nit ñi dëgg bi loolu moo jeex si su notre gouvernance kon maanaam lii amul dara loo xam ne dina la ci delloo ginnaaw. non ah, euh, xanaa population bi ne ma taxawal parce que nag ñoo moom mbir mi mu ne ma maire taxawal ma taxaw tant que population bi ne wu ma taxawal taxaw ma tant que population mu ngi ànd ak man ci mbir moomu ci li ñu bëgg a def non dara mënuma tere def. marché Gueule Tapée itam bañ ko doon uh, waaj a defar wala buñ ko doon defar sax xët-xët jugoon na fa ci diggante maire bi fa nekkoon ak ñenn ci commerçant yi ndax tey am ngeen benn ponk boo xam ne waxtaanee ngeen ko ba marché bi tey fan la toll. Euh, marché bi moom dañ ko arrêté. parce que dama ñëw falu toog weer diir gisuma leen woowuñu ma seetsiwuñu ma ma bind leen lettre ne leen nañu ñëw jëmee dama leen bëgg rencontrer. ñu leen waa marché bi non pas pas commerçant marché bi mais promoteur bi. promoteur bi bi ma ko waxee euh, ki koy représenté fii ne ma mënul ñëw parce que promoteur bi nekk fi. ma ne ko quoi kon baax na ma dugg sama bureau demandé sama secrétaire général ne ko defal ma arrêté d' interdiction de construction tout de suite ñu déposé ko foofu nañu arrêté chantier bi tant ba ba ñu am jot ñoom ñëw. ba ma ko defee si guddi gi la jël avion ñëw fekk le lendemain ñëw rencontré ma on a discuté on a échangé je dis que ne projet là il ko sur sur pour population bi gis si boppam. commerçant yi gis ci seen bopp nga gis ci seen nga gis ci sa bopp terew ma kenn mu investir mais kenn du fi investir ba pare ñëw aaki du euh, a de euh, mois là mhm. euh, vers le vingt cinq du mois pour boucler l'affaire là. ok kon dafa mel ni monsieur le maire la woon moo woon ni ci biir Gueule Tapée Fass Colobane tey yaa ngi ci beneen tànk dynamique liggéey ci biir commune bi. ma tant que doomi Gueule Tapée Fass Colobane seen kóolute gi ñu am ci man ñu ngi koy konne di am di ma dénk seen bopp di ànd ak man ci li ñu bëgg may ànd ak ñoom ci lu ñu bëgg dara mënuñoo tellu dégg ginnaaw mën naa nag dellu ginnaaw à la seule et condition ma jóg population yi ne ma eh maire bàyyil parce que nag ñooy sama njaatige buñ ma nee maire bàyyil ma xam ne du seen bëgg-bëgg ma baax mais tant que population yi waxuñu ma ne bàyyil taxawal non damay ànd ak ñoom def defi liggéey bi. ok te dara du leen ci dara du leen ci ah, delloo ah, ginnaaw waaw Abdoul Aziz Paye moom mooy suñu gan mooy bokk moomeel bu Gueule Tapée euh, Fass Colobane euh, monsieur le maire tey li nga xam ni nag moom moo jëm ci wàllum projet yoo nga xam ni euh, naal nga ko wala moom nga bëgg a sob ci wàllum wér gi yaram ban ban aspect nga jox wér-gu-yaram ci sa projet ci biir commune bi waaw dama jàpp ne en peine suñu commune yooyu boo ko gisee mu am lu toll ni si soixante douze mille abitant am benn centre de santé muy centre de santé wu Colobane damay jàpp dafa am lu anormal alors que norme OMS dafay wax ne fu am cinquante mille abitant rek war na am centre de santé. Mhm. donc loolu dafay ju boo ko xoolee dafay waxee ne wane ne am na nécessité am beneen centre de santé bon xëy na sax am na poste de santé bu bees bu ñu tabax fas avec euh, l'UNFPA ñoom ñoo ko financé avec les partenaires étrangers bu ñu defar ko mais inauguré guñ ko parce que dafa am matériel bu des et puis ay finition yi ñu ci war a terminer mais peut-être que balaa ñoo génn koor gi. Mhm. incha allahu rabbi xëy na dinaa ko mën a inaugurer. Mhm. parce que maa ngi ciy def sama kent laayu kàttan pour ñu mhm. terminer euh, domaine yooyu pour avancer sur ça. ci wàllum subvention ñi nga xam ne ñi war nañ ko jotee bu baax. ñoom ñu ngi koy jotee ñi nga xam ne ñoom ñi liggéeykat yi ak la ñu war a yellool ngeen war leen jàppale accompagner leen ci mbir mi est-ce que loolu itam yéen a ngi ci bàyyi xel. bi ma ñëwee daal bi ma leen rencontré aussi eh, wax nañ ma ñoom seen ay problème lan la wax nañ ma vraiment seen ay difficulté lan la te xamal nañ ma aussi que depuis huit ans mairie bi subventionné wu leen depuis huit ans parce ñoom ñoom ñoo ma ko wax aussi. huit ans. mairie bi nañ ma daal huit subvention bi ñu mujjee jot. c' était en 2009 et c' était sous de l' ancienne l' maire <laughs> mais équipe bu bees bi ñëw après pendant seen durée yëpp subventionné ko comité bi benn yoon. bon loolu moom aussi ñoom ñoo xam aussi lu tax defuñu ko bon. ah mais euh, da ngay bàyyi noonu mu jàll. non non non non fi mu ne nii moi écrit à des partenaires déjà de Sénégal pour chercher beaucoup de médicament par exemple aujourd'hui je veux pour les femmes là j'ai j'ai des amis qui sont aux États-Unis qui nous ont envoyé ay couches yu bëree bëri bëri bëri mais je les ai réceptionnés je les ai pas réceptionnés chez moi c'est l'a envoyé mais j'ai demandé que ce qu'on l'envoie à la mairie et c'est a réceptionné et qui a gardé parce que dama bëgg yooyu aussi ñu yóbbu ko ci centre de santé yi et puis aussi jox ko population yi aussi à partir des assemblées de quartier. Hmm. parce que loolu moom aussi dama bëgg tamit ñu tabaxal ko parce que hmm. damay wax ne c'est gestion participative parce que assemblée de quartier yi ma ñaan mën naa lancer benn message fii je pense. Hmm. maa ngi ñaan population yi ñuy déglu aussi ñu dimbali ma ci mbir moomu. parce que pendant toute la campagne wax naa leen ko parce que damay jàpp njeexital liggéey bi ñu mën a am ci assemblée de quartier pour ñu a am ci li ñu ci bëgg ngeen jàppale ma si dimbali si ci weeru ba taxawal assemblée de quartier wu taxawal assemblée de quartier wu. xanaa mooy conseil de quartier yi. waaw du sax conseil de quartier bi mhm. pas je suis allé beaucoup plus proche des populations. Euh, xam nga euh, assemblée de quartier boo jëlee Gueule Tapée par exemple da ñëw xam nga Gueule Tapée benn quartier la mais dafa am cinq chefs de quartier parce que dafa yaatu. Ah. donc dama ne euh, chef de quartier bu fu nekk bu chef de quartier am dañuy def assemblée de quartier mooy population yi. Mhm. ñoom ñooy génn dajaloo créer une assemblée populaire cr seen bureau. Ah. di wax ñoom seen problème lan la ak lan la ñu bëggu mairie bi defal leen ko su mairie bi amee lu muy joxe au lieu que muy dem di ko jox Moodu wala Paate wala kii mu dem jox ko assemble de quartier bi parce que damay jàpp ne. assemblée ñooy nekk sa interlocuteur. ak peuple bi. ku ci nekk su ma amee tey ñetti tàndarma yu may séparé su ma ko demee jox assemble wu de quartier bu nekk Colobane ñoom xam nañu ko amagul tàndarma boo dogoo man mënu ma koo xam. <laughs> <laughs> dégg donc loolu laa bëgg cette dynamique laa ñu dem et puis nga xam dem bu ñu xasee ba def dara ñoom dañ koy mën a sauvegarder parce que assemblée de quartier bi bu taxawee ne non fii ñun dañu bëgg ñu pavel ñu ko dañu bëgg ñu defal ñu fi jardin public dañu bëgg nangam nangam nangam même bu fa nit nekkee am occupation anarchique pour yëkkati nit kooku day yomb parce que ñoom dañuy impliqué wu pour nit kooku jóg donc moo tax ma doon théoriser ces assemblées de quartier parce que damay yaakaar ne foofu mooy bunt bi. Mhm. pour ñu mën a régler problème yu bëri. Euh, yaa ngi ci wàllum l'école yi itam. Mhm. parce que su la déggee nga ne si wàllum santé ñoom toog nañ huit ans. jotuñu subvention ci wàllum paj mi kon xanaa école bi tam warut a mën a demee noonu. waaw école bi moom de de c' est catastrophique ah c' est que xam nga bëgguma di <laughs> di wax. ah non parce que li nga wax fii tamit dafa doy waar huit ans jotuñu subvention kon école bi itam xanaa ñoom jaawuñu woon jot li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum subvention euh, nekk na lu yéeme quand même ah. li ñu natal sax école bi li ñu natal école bi. ci budget boobu ma fa mujj den budget bi ma mujjee fekk boobu ma ko jëlee élève bu nekk ci biir école yi day nekk ñaar dërëm ak ñeenti fistin par jour. cest natt boobu la ñu budgétiser woon pour mi ñaar dërëm ak ñeenti fii lan la mën cest à bu nekk nombre d'élèves yi nekk ci commune bi. Mhm. boo ko jëlee nga jël ko par rapport au daf lay jox élève bu nekk ñaar dërëm ak ñeenti fii par bés. ñaar dërëm par ak ñeenti fii par bés lan la mën monsieur mën na jënd tàngal sax fi ñu toll nii. donc boo nee loolu da nga koy pour élève bi am fourniture am tenue am et cetera si mooy mooy sa projection mhm. baaxul. ban situation lañ la tegal ci lekkool yi foofu tey. Euh, table banc yi moom déjà c'est un énorme problème et nous avons dans notre programme benn chantier bu vaste de renouvellement des table bancs dans les trois premières années parce que il nous faut au minimum trois mille nouveau table bancs ak ay mécanismes yu bees nag de fabrication parce que aujourd'hui dañuy dem dans le cadre d'une convention avec le lycée technique Maurice Delafosse nga xamante ne ñoom ñooy defal ay table banc pour sama menuisier métallique yi ak menuisier bois yi nekk ci commune bi ñu créé wu en GIE dem def sous-traitance bi pour fabriquer des tables parce que pourquoi may def démarche boobu parce que ñun dañu jàpp ne bu ñu ko defee dina permettre menuisier yooyu ak euh, métallique yi ak bois yooyu ñoom amuñu woon diplôme lycée de la fosse mën leen délivrer benn attestation certifiante. Mm-hmm. ñu xam ne métier bi mën nañ ko. parce que ëllëg port mën na leen soxla ñu wax leen pour ñu ñëw postuler mais amuñu diplôme bu ñu fa teg ainsi de suite ça nous permet nous déjà de régler le problème scolaire. Mm-hmm. de régler le problème de la formation. et de leur donner aussi des revenus parce que bu ñu fayee de la fosse de la leen si sous-traitance bi ñoom bu ñu organiser wu au bout de la troisième na sax du ñu egg de la fosse mais ñoom ñooy donc démarche yooyu la ñu bëgg am pour régler par exemple le problème de tabac le problème aussi de euh, des fournitures scolaires daf ñu tenir à cœur parce que mag famille dañuy sonn dañuy jaaxle dañu am ay problème alors ñu ngi travailler ci ay projet c'est mënuma toog di wax sumay projet par exemple je donne un exemple très basique hein sem dem si guddi rek laa toog mu ñëw suma xel ma ne bon moi j'ai am naa papeterie yu mag yu nekk ci dëkk bi alors est-ce que mënuma jël benn papeterie par exemple ma ne ko yow da ngay dem tii école bi benn benn benn boutique di jaay ay yi mais 50 pour cent des fournitures de ces établissements là de ces écoles là yow yaa koy jox élèves yi xalaat yu sew yooyu. public privé la quoi. waaw mhm. privé la. gagnant gagnant par exemple man ne Sonatel par exemple tey jii école Jaraaf Ibra Pay Sonatel man miir bi dafa gudd rëy rafet na yow maa lay gis ngay luy ay panneau rek di teg ci mbedd mi noonu chaque weer nga fay non kaay jox la suma miir bi nga def sa sa sa produit publicité ko. mais avec l'obligation de me refaire mon la ak salle informatique ak yëpp c'est comme ça parce que amuñu moyen financier yi pour def ko maintenant ingéniosité moo ñuy permettre ñu régler problème yi bay avancer ok te fànn woowu nga jël doo ci wàcc non incha allahu rabbi ok ni nga muy neex borom bi ak ci weeru koor gi ñu nekk voilà ci ci li xam nga moo jëm ci wàllum cadre de vie itam loolu lu as aspect bu am solo la cadre de vie mhm. tey bu commune bi tey euh, fan nga ci toll ak euh, ndax ay jéegoo am na ci wàll wi ni mel. non pour le cadre de vie moom laa doon wax noonu moo dafa ànd ak désengombrement bi c'est-à-dire que tey jii par exemple fi ñu dañuy déjà dindi moi bi ma ñëwee fekk naa benn jardinier bu nekk ci biir commune bi actuellement dama ne ko bagage yëpp garab yeeg yi ñu waroon am yëpp pour def jardinage par exemple na dem côté boobu tegal ma ko fa en attendant commencé defaral ma foofu. en terme de jardin en termes de gazon en de fleurs et cetera c'est-à-dire que comme ça fu ñu dindi rek. Mhm. moom automatiquement day dem yóbbu garab yeeg yooyu ak pot de fleurs yi ñu teg avancé. c'est comme ça qu'on compte faire mais on a un vaste programme de pavage qu'on va lancer. ci commune bi yëpp. waaw waaw toute la dans l'intégralité de la commune. mais nag yombul tamit parce que ak BRT bi. ñu ngi ñëw bënn sama commune bi yëpp jaxase ko. daa mel ni commune bi mu léegi moom kenn mënut a comprendre. voilà non avec BRT bi ñu bënn yëpp avec assainissement bi aussi l'AGEROUTE xaw ma ku mu jox marché bi bënn nañu sama commune bi yëpp Fass Gueule Tapée Colobane suuf si dajale ko foofu teg ko fa tu appelles dix mille fois pour ñu ñëw dindi ko fa kenn dindeegu ko ba tey. Mhm. tali yi defaraguñ ko trottoir yi c'est très mal fait non mais c'est c'est grave. parce que est-ce que loolu dinañ ko bàyyi ak nawet bi di ñëw itam askan wi di mënta nekk parce que bu subaa parce que nag bu fekkee ne ñoom dénonciation la ñu bëgg ñu commencé def dénonciation parce que mën ñu leen di leen woo di leen relancer toujours pour ñu mën ko ne bu fekkee ne nag dañu bëgg ñu commencé def dénonciation on va commencer à la dénonciation parce que bu fekkee ne Sénégalais yi loolu la xam xamuñu démarche rectiline ba nga xamante ne c'est une responsable pour appeler l'individu ne ko yow avec des moyens de bord ya xamante ne damay àbb matériel fii wala ma dem louer matériel personnellement pour régler le problème pourquoi alors que ñoom ils tout le matériel même bu ñu amul ñu ko dawal nañ ma jox matériel bi man ma dindi suuf si yëpp jëlee ko fa parce que am naa sama doomu commune bi su am na ay chauffeur am na ñu mën a dawal pelle mécanique buñ ñu ko joxee en 48 heures ñu deb ñu dindi lépp mhm. mais mënoo nangu ñu bàyyi. mbir moomu jax léegi wàllum assainissement bi ci commune bi moom itam xalaa ay jéego am na ci. waaw ñu ngi teg nag am na ay euh, assainissement bees bu ñu commencé woon teg ci biir commune bi ñu ngi doon def branchement yi mais commencé gul fonctionnel ba tey bon loolu aussi comme ñu ngi koy teg doo ci mën a sori parce que xamuloo finalité bi lan la. Mhm. xamuloo ndegam njeexital bi dina baax wala du baax. donc daal di rafetlu di ñaan yàlla aussi njeexital bi baax. Mhm. ndax euh, ñu mën a assainir commune bi yëpp. parce que aussi loolu moom dafa nekk un objectif ba nga xam ne dañ ko war a atteindre. Mhm. parce que suñu toll nii problème mu assainissement pour man waratu woon am Sénégal lu tax waratu woon am Sénégal parce que dama jàpp ne ndox mi ñuy naan fii Dakar ndox mi ñuy jaan Dakar fu mu jógee lac de Guiers ñu drainer ko indi ko ba fii. donc ndox mi nekk fii war nañ ko mën drainer yóbbu ko ci biir à l'intérieur du pays pour arroser tous les champs et les fleuves qui mhm. ndox mi taw mi nekk fii. ak beneen ndox mi mën nañu war a créer les conditions pour drainer ko pour doper l' agriculture sénégalaise. Mhm. et l' élevage. ok yaa ngi wax euh, place de la nation ku ko gis gis xam ni. Euh, xar kanam bu bu yànj la am. Mhm. am na sax gazon synthétique. Mhm. Euh, foo xam ne euh, nit ñi ñi ngi fay est-ce que loolu mu ngi leen di euh, yéen a ngi am re, revenu walla ay ressources ci place de la nation bu anam anam gi ñu ko aménagé foofu. waaw amee daf bon entre parenthèse gazon ba dee na nag moom ah parce que dañu ko defar ba pare tëj ko. depuis presque place la nation kenn utilisé ko dara place la nation bi dañ ko jëloon këf ko yóbbu ko dugal ko ci benn ministère génne ko si gox Gueule Tapée Fass Colobane mais wax naa leen ne nañu jàpp ne place boobu ci goxu Gueule Tapée Fass Colobane la bokk dinañ ko récupérer dinañ ko utiliser pour bien-être population bi. fu ngeen ci toll jo commencé ngeen ay waxtaan. ñu ngi ñu ñu ngi si. des nañu ay documents am na ay documents yu commencé di élaborer pour ñu delloo ko dans le patrimoine suñ ci igéey indi njeexi njaaxa nag je vais les soixante dix douze mille habitants ñu dem toog foofu ñu xam ne ñoo ko moom. yàlla dañ ko dañ ko liggéey. te xamuñu ban non non non commune bi la nekkoon mais dañ ko génne ci patrimoine commune bi yóbbu ko logé ko au niveau du du ministère de l'urbanisme je pense mhm. de de et du de vie mhm. xanaa war na nekk urbanisme moo ko yor léegi donc mais y avait des si ñu doon échanger ak ñoom pour ñu delloo ñu ko xawoon na pousser sax tuuti mais dafa am benn moment mu taxaw mais il faut que ñu accélérer ko pour que mu nekk patrimoine parce que man sama xale yi amuñu fu ñu footballé ngi foofu dañuy ban buggee bu ñu buggee football dañuy dem di fay 70 000 francs pour une heure de temps alors que terrain de football mu ngi foofu mooy li ngay wax noonu gazon boobu yàqu na amul benn utilité alors que place bi ñun ñoo ko moom war nañ fa mën a organiser ay foir pour nos artisans nos jeunes artistes qui sont là-bas ils doivent pouvoir se di créer ay festivals nos bale qui sont dans la commune huit ballets on doit pouvoir organiser des ay festivals ay cérémonies inviter les pays étrangers ñu ñëw parce que cette culture-là doit pouvoir exporter notre commune et la vendre ñun ci dynamique boobu la ñu nekk. Mhm. donc di nga topp mbir mi daal ah ba mu sës. Mhm. <laughs> wax ci wàllum àddu ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci wàllum euh, yaa nga ko wax léegi terrain sax amu leen ko kon. est-ce que commune bi am na espace bi nga xam ne tey mën ngeen fa defar benn stade boo xam ne laata ngeen dem di football ci yeneen euh, euh, kii alentour yi. Mhm. comme lu ci mel ni euh, Demba Diop sax tëj nañ ko Iba Mar Diop moom moo fi nekk est-ce que am ngeen espace bi nga xam ne mën na accueillir loolu tey. waaw man yooyu yëpp li may wax chaque jour rek il faut ñu def ko ci ay pexe parce que par exemple boo jëlee côté Fass bi le terrain de Fass là topo ban bi ma ñëwee levé topo topographique yëpp def naa ko. parce que ça rapidement incha allahu rabbi aussi dinañ ko jéem a xool nu ñu koy aménager pour le pour pour rendre un praticable. Mhm. ama dem naa fa ak équipe yi def nañu ay levée topographique pour voir nag lañ fa mën a organiser wax mhm. bon euh, loolu benn la mais ñaareel bi mooy lycée de la Fosse xam nga lycée de la Fosse c'est vrai dépendrul ci commune bi mais lycée de la Fosse dafa nekk ci biir commune bi mais lycée de la Fosse xam nga village olympique gis nga Clairefontaine ni mu mel en France. Mhm. boo duggee biir lycée de de la France noonu la ko tubaab yi defaree mais on mhm. sa sa biir commune la di nga boo duggee biir de la la partie bi nga bi dañ ko réservé woon pour sport mhm. dañ ko def comme Clairefontaine. amul benn discipline bu ñuy pratiquer te amul foofu terrain baa ngi fa mais ñu ngi ñàkk jàpp léegi di. ma ne aussi dans le cadre d'une convention il faut ñu delloo terrain yi Il y a des terrains de football, il y a de handball, il y a de volleyball, il y a de tennis, il y a même un petit de la Fosse. nit ñi xamuñu ko sax am na stade mu ndaw. bu nekk ci biir <laughs> ci biir. donc c'est ça alors yooyu yëpp war nañ ko mën a revitaliser defar ko dans le cadre d'une convention. Mm-hmm. su journée bi jotee ñuy def éducation physique xale yi utiliser ko. le dojo le gymnase qui est là-bas dañ fa doon def saut amoon na sautoir am na chevalier am na corde am amoon na lépp mën nañ ko utiliser comme dojo. di même xale yi bu 5 heures jotee bu ñu wàccee ñu dem di def karaté taekwondo des trucs comme ça pour forger un caractère à nos enfants parce que dafa am solo c'est important. Okay. canal 4 bi moom am projet bi foo ci toll. parce que canal 4 itam fële nga xam ni moom moo jëm surtout ak menuisier yi fi ñu nekk noonu. Euh, mbir mi xëy na ay projet mi ngi fa ba tey ay chantier yi nga xam ni mm-hmm. laal nga ko ci mbir mi. Mm-hmm. waaw canal bi. Euh, tamit xam nga wax naa ko nit ñi il faut ñu ñu def naa ñu xam ne il faut ñu toog ñu waxtaan alors canal boobu dafa nekk canal bu compliqué parce que foofu nappe phréatique bi soriwul nappe phréatique bi c'est à un mètre ou un mètre cinquante cest à man tey jii sama kër pap bi nekk foofu bu ma gasee à un mètre damay am ndox alors kanaal boobu est war nañ ko tëj est-ce que waruñu ko tëj loolu beneen dimension la canal bi aussi dañuy xam ne mairie Gueule Tapée daf ci am responsabilité mairie Point E am ci responsabilité ville de Dakar am ci responsabilité nekkul su suma responsabilité rek ñoo ko bokk mhm. luñ ci mën a def il faut ñu toog dans le cadre de l'intercommunalité ñu toog discuter ni canal bi nii lañ koy defee. war na mën a nekk. waaw bien sûr. bien sûr ah sama cousin parce que a. sama cousin la Baar la. Ah. waaw warul a métti mu ngi mu ngi noonu nag donc xam nga loolu sant yàlla quoi donc il faut ñu toog dans le cadre de l'intercommunalité ñu xool comment le faire ñoŋal ko aussi pour nit ñi mën si profiter parce que cadre de vie la bu ñu war a mën a foofu ba nga xamante ne. Mhm. dina permettre nit ñi ñu épanouir mhm. mais rien ne doit se faire la précipitation déggoon naa fi ñuy wax dañ koy tëj ak ko tëj. li nga peste day am foofu. ah, ah oui ah oui les rats qui sont fu ñuy dem. li dañuy wax parfois du ñu naan kon sax si li ñuy wax. canal bi ay kaña rek la. <laughs> kon bu buñ ko tëjul ñu xool leneen nuñ ko mën a def. voilà tu peux tu peux ne pas le fermer mais aménager ko. de sorte que le problème premier du canal qu'il foo régler c'est le problème de la saleté. ñu koy curer normalement di ko désinfecter normalement ndox mi di jàll normalement. d'abord ça c'est le premier problème à régler et ça loolu lu lu yomb régler la baie de Soumbédioune boobu ñuy wax ne pour defar ko il faut beaucoup de trucs alors xam nga kanaal bi boo ko jëlee dafa am trois ak mhm. moo tax nit du laaj du laaj fu mu dëkkul pour ñu jox ko ko mu gérer ko booy laaj fi ngay fu ñu la jox mooy day fekk nga dëkk fa canal bi dafa am trois axes axe bu njëkk bi xam mooy ban xam nga côté boobu noo mooy axe bi nekk point E si station état bi euh, euh, euh, station Euh, essence euh, essence bi. nekk ci côté hmm. amul tali bu jaar foofu ci kaw canal bi mooy tali bi dugg nii rek biir Fass. Hmm. xam nga dafa jaar ci kaw canal bi. nga boo demaatee boo jógee foofu nga demaat ba Colodel xam nga tali bi génn Colodel di dugg biir Gueule Tapée. waaw te dafa jaar ci kaw canal hmm. après corniche moo ci des. corniche bi xam nga dafa jaar ci kaw canal bi. donc boo jëlee ay plaque de fer yu yu gudd avec toute la largeur nécessaire. placé benn foofu placé benn clodel placé benn corniche benn salte dootul exister à la baie de Soumbédioune solution daal ñàkkul voilà et des solutions très simples qui ne mais il faut que ñu bàyyi nit ñi mais mhm. nit ñi am seen condition am un peu de temps mhm. je pense que si les gens discutent on peut régler ces problèmes waaw comme yaa ngi koy doon wax léegi intercommunalité Fass euh, Fass euh, euh, Gueule Tapée Fass mhm. ak ville de Dakar ba tax sax ay coow jugoon fii fan yi di ngeen di créer benn collectif maire yeewu askan wi xanaa loolu loolu moom idée boobu bu sottee mooy xam naa yeneey defar seen kanaal bi <laughs> incha allah incha allah lan nga xalaat ci collectif boobu nga xam ni junj nañ ko mais non c'est-à-dire xam nga nit ñi il ñu xam ne ñun dañu nekk si dans une dynamique de construction c'est-à-dire dañu ñëw pour liggéey parce que ñun ñëpp ay profession la ñu am depuis 19 ans ou 20 ans di liggéey dans la privé nekk fii yàlla ñuy suturaal aussi il faut nit ñi comprendre loolu mais mën gis aussi suñu gox yi suñu rakk yi suñu jarbaat yi suñu bàjjan yi suñu umpaañ yi di nekk si ay difficulté te ñu xam ne difficulté yi am na ñuy taxawee dañ koy surmonter ñun ñëpp mm-hmm. donc bu ñu ñëwee aussi ñun ñu dajaloo manko nekk benn donc dañuy mën a ànd parce que il faut qu'on la force aussi. Mhm. parce que Sénégal ñëpp xam nañ ni muy fonctionner. Mhm. donc nag dañu war mën di jàppalante man li ma am comme xam-xam wala comme moyen ma mën ci jàppale beneen maire ba nga xamante ne mu ngi nekk à côté dama ko war a def. et c'est cette intercommunalité là qui nous permettra de régler des problèmes. ok est-ce que ñi nga xam ne moom ngeen jàpp yéen collectif bi nga xam bëgg ngeen ko taxaw yeewi askan wi seen maire est-ce que du dynamique politique non xam nga politique politicienne moom moo jeex Sénégal te Sénégal yaakaar naa dama am ñu ko comprendre agul bu ñu xoolee maire yeewi askan yi ñu fal rek ñoo xam ne politique politicienne jeex na c'est-à-dire que les Sénégalais dañu soxla lu bees tàq ay modèle yu yu wóor discours bu bees tàq gisin gisalin bu bees tàq nekkuñu fii saagaw saagaw ñu kenn ñoo kenn mais débat nag diidee dañ koy teg et on est prêt à débattre avec n'importe qui de sur mhm. tout les questions. mais est-ce que leen dem ci au sein de l'association des maires du Sénégal waxtaanee fa xalaat bi ngeen. xam ne loolu mais si la ñu bokk ñu bëgg ko ñu bañ si la ñu bokk. loolu si la ñu bokk ñu bëgg ko ñu bañ ko si la ñu bokk mais nag am nañu droit aussi créer un cadre ba nga xamante ne c'est un cadre de réflexion parce que sama groupe de réflexion groupe d'étude et de réflexion GIS yi <laughs> parti socialiste daan créé <laughs> c'était pourquoi bëri na fi <laughs> ci ci ci jamono joojee ñuy waajal li nga xam ne moom moo jëm ci élection législative Euh, déjà rek gis nañ ni ku nekk rek di génne ay chiffres euh, wala sax di ay nit délégué di mën a ko teg ngir mën a dem wuti ay parrain yéen ci jamono joojee yeewi askan wi bàyyi na quatorze délégués yi xalifa Sall moom moo nar a jiite seen li nga xam ne moo jëm ci parrain yi fii ci biir Ndakaaru est-ce que jàpp ngeen ni walla est-ce que d'abord euh, filtrage bi ngeen di wax ni euh, dalul seen xel ci euh, euh li nga xam ne moom moo jëm ci euh, parrainage boobu est-ce que dal na seen xel. Euh, merci xam nga affaire parrainage bi moom il faut ñu toujours aussi ñu def si ndànk parce que du lu bees parce que boobu ba tey. biñ ko avancé ba tey ay problème rek lay indi gis nga affaire parrainage bi le comité de suivi du dialogue politique mhm. di dialogue national du dialogue politique dem nañ fi Cap Vert dem nañ fi portigal avec les membres di ministère de l'intérieur ak yëpp bi ñu demee def seen ay visites yëpp ba ñëw indi seen ay rapport li ñu rapport boobu waxoon xam nga mooy lan moo defoon ne woon ministère bi li ñu fekk ci yeneen dëkk yi condition yooyu amagul Sénégal ba ñuy def parrainage donc bu ñu fi defee parrainage nañu am problème mais dégguñu loolu dañu jël rapport yooyu yëpp teg ko def li ñu bëgg parce que politiquement xëy na loolu la ñu bëggoon ñuy def alors di prétexte benn mbir mbir mi ñuy prétexte woon mooy que buñ ko deful candidats yi dañuy bëri am déet ba dem dugg si déposé nañu kenn xamul modalité yi yi ñuy éliminer ak yi ñuy contrôler lan seen bët daal voilà nit mënoo ko contrôler ne ko dama lay contrôler ba pare te tegoo benn règle de contrôle ba nga xamante ne moom xam na ko <laughs> parce que xëy na boo xamee sax règle de contrôle yi ça va lui moom mu jël ay matukaayam def contrôle a priori xam te ne bu ñëwee dootul am problème hmm. alors mais dëgg moom li olof di wax naan du wees nopp réélection locale yi ñu génn hmm. wone na ne yàqul dara ci élection au Sénégal defuñu ci parrainage li ñu yaakaaroon nañ ci candidat dina am amul dem nañ ci jàmm ak salaam nit ñi wote nañ ci jàmm ak salaam biritaay génn ci jàmm ak salaam te kenn déggu fi benn ñaxtu wala benn kaas wala benn xuloo wala benn xeex. donc jàmm jooju jóge ci élection yooyu rek waroon na tax président la république delloowaat xelam ne déet parrainage bi nañ ko arrêté pour le moment. te jublu. ci élection législative yi. waaw yéen bu fekkee loolu seen xeex la ngeen commencé di ko xeex après ngeen dem jëli fiche parrainage ngeen ne da di dem est-ce que tamit amul waroo ci seen gis-gis. waaw xam nga ab ab ab tënk moom loi moom ak règlement bu xasee ba nekk réew ñu wote ko ñu signé ko. c'est-à-dire que am na yoo xamante ay matuwaay parce que xam nga dialogue politique moom mooy régler yenn problème politique yi ay problème parrainage la. mais il faut que politiciens yi sañ am sañ-sañu toog pour régler ko politiquement. Mhm. donc ñun loolu mooy suñu problème mais bu ñu ko réglé wul politiquement il faut rester dans dans le de la euh, nu mu tudd ni ma koy waxee dans la rigueur des principes. Mhm. rester dans la rigueur des principes mooy respecter la loi dans toute sa dans dans dans toute dans, dans toute sa dimension quoi. Okay. donc ça aussi dafa am importance. local yi gis nañ ni yi laata muy génn xëccoo bi bari na lool ci seen camp ak beneen euh, yi ñu jëm. est-ce que jàpp ngeen itam tabb bi wala ñi nga xam ne am nañu ambition dina dina yomba départager ci ñi nga xam ni am nañ ambition ci mbir mi. waaw mais waxtaan la rek xam nga bu ñu waxtaanee rek juboo parce que bu fekkee ne par exemple ñun bu ñu jëlee suñu cas mën nañ ne par exemple ñun candidat yi ñu amoon yëpp ñu dem local gagné sur dans tout dans chaque zone ñoom dañuy dañuy bokk sur la liste par exemple parce que c'est des candidats qui sont talés qui sont gagnés qui sont pour dooleel suñu bopp ñu ne non ñooñu dañ di bàyyi ñu dem. la force ñu nekk dans la liste nationale wala la liste départementale de telle pour battre campagne pour mener la campagne pour guider la campagne parce que am nañu doole bu ñu leen ne dañ ma dañ par exemple dañu jël man cadre bi ma nekk ñu génne ma si jël ka nga xamante ne amagul doole boobu wala population bi gisoo ko ñu jiital ko mën na am problème. est-ce que tey c'est une question de réflexion Abdoul Aziz Paye euh, maire bu Gueule Tapée Fass Colobane am na ambition pour bu na dem ci pencum ndaw réew mi itam. man fa yeggali mbir ay li nga xam ne nag moom moo jëm ci liste Yewwi Askan Wi. waaw incha allahu rabbi ñu nit ñi daal ñu ma yéene nañ ma ko. chaque jour ñu wax ma ko ne nag da nga war a préparer wu pour parce que il faut ñu dem da ngay dem. donc euh, maa ngi ñaan yàlla aussi yàlla yombal nañu ko ba ñu mën ko def parce que xëy na bu ñu nekkee bu ñu eggee foofu it mbir mi dina gën a yomb. te lii population yi di xaar si ñun aussi dana gën a yomb parce que di yàlla dinañu may xëy na eh, dimension ba nga xam ne dinañ permettre ñu mën a régler problème yu bëri. cohabitation bi ngeen di wax gëm ngeen ko. waaw euh, il faut il faut que ñu il faut que ñu dem si bu ñu demee sax moom du soxla est-ce que nañ parce que bu ñu gañee rek mënut démission Macky Sall démissionné dem. <laughs> loolu mooy ban fànn noonu Macky mooy mooy njiit bi di. Ah, bu ñu paree day bu bu xam nga nag aussi doo doo ñëdd bool kenn du ko ñëdd. xam nga nag bu ñu est bi loolu lu mën a nekk la ah. parce que ñoom dañ ne ño yéen da ngeen ne yéen a te euh, Benno Bokk Yaakaar gis nañ ni euh, ci 46 départements yëpp ñoom ñoo gagné. xam nga ne Macky Sall boo nekkoon ñu bàyyi la nga gagné Dakar mu ne waa baax na bàyyi la ma gagné Dakar liste yëpp jël leen ko <laughs> comme nga yem ci Dakar nag moom ak Ziguinchor. Mm-hmm. Ah, euh, seen seen xam ne dañuy wax rek. Mm-hmm. parce que électorat bi fu mu nekk xam nañ ko. ci Thiès Dakar Ziguinchor. <laughs> kon da ngeen koy dàbbaliwaat. Ah, euh, bu méttee métti sax. Mhm. bu méttee métti sax man su doon moom damay porté damay damay porté forfait du ma dem. no no <laughs> am na solo en fait ñu jeexalee ci benn ponk ñu bàyyi la nga tàggatoo. Mm. premier ministre procédure d'urgence lañu waxoon waaye ba léegi ñu ngi xaar euh, ndax am nga yaakaar ni tey bu jëlee kàddu xëy na dina mën a baral mbir mi. Ah, waaw waaw xëy na xëy na xëy na waaye doy na waar de am nga lu ñu gën a doy waar moom. mooy eh, nga bëgg a tànn premier ministre am difficulté pour tànn premier ministre. ah da jàpp dafa am. jafe-jafe ah non c'est des difficultés énormes pour choisir un premier ministre c'est-à-dire waxuñu ko. comme ban ci ban fànn. est-ce que du ñu muy tànn ñooy bañ. ah loolu de moom <laughs> est-ce que nit ñi ragal. ah lu wax loolu. ah parce que xëy na kenn bëggul nekk premier ministre ah kàngam yi bari nañ foofu de. Ah, ah, kàngam yi bari na ci réew mi mais est-ce que kàngam yi kàngam yi nekk ci réew mi bëgg nañ nekk premier ministre. lan moo war a doon gàllankoor bi. ah, ah dañoo ragal rek. dañoo ragal rek. ci lan ban fan. ah xëy na dañu yaakaar ne xam nañ ne bu bu bu bu leen defee premier ministre affaire bi ñoom eh, seen kaw lay këpp te bëgguñu mu këpp seen kaw. dañu bëgg këpp sarax sarax si xëy na ñoom ñu weñ <laughs> sa candidat 2024 Khalifa Sall la. <laughs> waaye bu buñ ci egsee rek dinañ ci waxtaan nag parce que xam nga ñun fi mu ne nii. Hmm. dañuy dañuy bu ñu jubloo ci benn mbir rek dañuy jublu ci mbir moomu. 2024 hmm. hmm. euh, xamaguñu kan mooy nekk candidat mais ku ci nekk mën nga nekk candidat. taxaw seen moom mooy waaw ku ci nekk mën nga nekk candidat. ku ci nekk mu Khalifa mën na nekk candidat Sonko mën na nekk candidat Barthe mën na mais est-ce que mën na nekk candidat. <laughs> xëy ñëwaat ci plateau bi waxaat ñu ko. <laughs> incha allah. ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax baax ci suñu ñu ngi invitation. bi presque <laughs> woon ci waxtu daanaka jeex na jërëjëf jërëjëf euh, maa leen di sant di leen gërëm euh, di ñaan aussi si weeru koor gi ñu nekk yàlla defal ñu si jàmm mhm. yàlla aussi defal leen jàmm defal leen sutura barke ak euh, xewal yu barkeel te seen rajo bi ak seen groupe bi yàlla yëkkati ko ba mu doon ci groupe yi gën a am doole ci kii réew mi te li ngeen si séentu yàlla defal leen ko te muy doon li gën si yéen si kat na ma daraja yonentam bi mhm. di fàttali rek encore que ne lii moom exercice la rek li may wax chaque jour que informer c'est former et man damay wax chaque jour que une formation efficacement la transformation qualitative de l'homme et du peuple en général mm-hmm. donc ngeen kon ne parce que yéen aussi vous avez une mission et un rôle important à jouer dans la société sénégalaise aujourd'hui parce que yéen a war a apporter cette transformation qualitative là du peuple sénégalais mm-hmm. en leur donnant la bonne information les for les former objectivement. na solo donc daal yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp. may ñu woor si jàmm ak salaam may suñu mbokk jàngu bi aussi ñu wari si jàmm ak salaam. Mhm. si kàttanam ak daraja yonentam ba tëdd salaam. di ko sant di ko gërëm bu baax a baax moom Abdoul Aziz Paye ni mu ñu nangulee invitation bi di gërëm Léopold Mendy moom mi nekkoon ci euh, baie vitre bi di ko sant di ko gërëm bu baax sama technicien bi di gërëm ñëpp ñi nga xam ne nag jàppoon nañ ci émission bi jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci rajo FM